Ousmane Sonko ci koo xam ni amoo mais Amadou Ba tey Amadou Ba parcelle gii nii ñaata élection jàll na fi Ousmane Sonko day du moom sax mais dafay yabal ay ndaw ñu wulli ko fi bam ni waale hmm. tey nga jël ku ci mel ne nu mu tuddati euh, bon boo ne Amadou Ba presque ñi ci des ñëpp Barthélémy Dias gis nga li nga xam ni moom moo xew ci Ndakaaru waaw loolu laa wax loolu laa wax man ne nga gis ñi jël Barthélémy Dias ci élection présidentielle yi nga xam ni moom moo jàll eh, moom moo jàll ñu ndulli ko fi ndulli métti ba ndulli ko ci biir bureau de vote am léegi tey même Tahirou Sarr bi ñuy wax ni sax tey booy xool seetaan ci YouTube bu Ousmane ko jàllee moom moo ci topp looy wax ji li muy bari bari moo nañ Tahirou Sarr fi moo nekk base politique am sa ay Ousmane Sonko maanaam c'est quelqu'un boo xam ni ah, en politique <laughs> lépp loo xam ne mi ngi koy def euh, am na lu mu jublu ci yëf yi am na te te nga nar a gis lu doy waar lu yéeme foofu la nga xam ni moom moo di ca Ziguinchor xam nga daf ko préparé daf ko wàcc. Mhm. mooy keroog Dakar Arena. mu lance Ousmane ko ñaata ci la def mosoo ko dégg mu rendre hommage noonu xëy na lu ne nag am na moment bu mu ko war a waxee. ma ma maanaam ma Ousmane ko léppam daf koy planifier maanaam da ngay jàpp xëy ne par hasard la mais man dama gëm ni waa jooju noonu amul lenn loo xam ni mu ngi koy def te nekkul lu mu planifier ba mu ni koc ni ko rek daf leen a fële leen ne leen njëkk a cuqe ba pare te xam nga li ci ëpp solo mooy ni mu aborder sa communication wax na ko range leen hommage te amul benn militant wala sympathisant bu xeexoon bu ci mer te da ko Ziguinchor c'est au contraire dañu ànd ak moom ci mm. hommage bi nga xam ne sax moom la doon rendre waa Ziguinchor mais c'est extraordinaire man ne bu doon sama zaar yi mën nañoo waxee noo xam ne boo moytu sama militants yi bari fa la ñu jaare bàyyi ma parce que danaan est ñu rey fii suñu bopp mais gis nga ni mu ni mu ni mu duggee ci yéen ñëpp aussi. Mm, waaw waaw mais moo tax ma ni la ci ci wàllu communication moom mm-hmm. en tout cas xam na ni muy waxee ak public bi nga xam ni. dafa xam ay nitam. ñoom ñoo toog di ko déglu di ko bàyyi xel nga xam ni foofu la njëkk a joxe waa Ziguinchor ba pare parce que xam na ni mi ngi jëm ci étape bu am solo boo xam ni nag Olof Ndiaye day faral di wax ni nit su nee baax na ndax mbokk yaa ko wax léegi nag Ousmane Sonko fi ñu ne bu demee def xam nga day dem jaar na gin gi neew jaar Koungheul ñu naan mobilisation bu exceptionnelle mais di ko def ci dëkk jàmbur yi te defoo ko ci sa dëkk amul sens léegi nag boo ko defee ci sa dëkk ba pare léegi meeting ko jig waaw léegi nag <laughs> ñi nga jàkkaaroo da nga leen mettre mal ah Bougane nee na moom mooy borom ndar Bougane gëm naa ni dana campagne ba campagne bi jeex tu ndoo gëmu mu teg tànkam ndar ah, bu Ousmane Sonko defee li muy def non déglu ma déglu ma <laughs> ma àggali rek bu Ousmane Sonko defee li muy def Ziguinchor ba pare Bougane yaakaar naa ni du dem dar eh, nu Thierno Alassane Sall fu mu dëkk maanaam Amadou Ba yaakaaru yaakaaruma dina yaakaaruma ni li waa Thiès la <laughs> yaakaaruma ni <laughs> dina ñëw dina ñëw parcelle pour def fi li nga xam ni moom moo di ay mobilisation Anta Babacar <laughs> c'est-à-dire maanaam day xool maanaam ay ay coup coup spectaculaire lay jël di ko dugal li nga xam ni ñoom ñoo di ses adversaires ba daf leen di jaxase en fait du day après du ñu xam voilà du ñu xam bu ñu paree fan la ñuy teg seen tànk moo tax ma ne la Ousmane Sonko dem gi mu dem Ziguinchor nekkul dafay dem parce que dafa dafa ni daf leen di woo parce que xam na ni Ziguinchor gii eh, wax dëgg yàlla Ousmane Sonko moo fa teg tànkam mais dafa am fa dëkk nag day wane ni foofu laa dëkk. voilà laa jógee. dafa dafa dafa politiquement. am na am na lu mu bëgg a démontrer. Mm-hmm. am na aussi coup bu bu bu bëgg a dugal tey. moo tax xam naa ni tey moom. foofu lay eh, foofu lay foofu lay tey foofu lay moo tax ma moo tax ñii vraiment li Cheikh Omar Diagne dañuy tappale rek wallaay politique ñu dañuy tappale tey buñ yaakaaree ni nii la ñu bëgg a naxe askan bi mais xalal coalition sàmm sa kàddu ñi fa nekk Barthélémy Dias gis nañ ko bërki démb moom dem ba booleeg waa takku wallu waalo pour mën a xool nu ñuy boolee seen xam nga mais xoolal ñi fa nekk ba pare Barthélémy Dias bu ñu demee ba gis ko mu taxaw insulté publiquement ñëpp di ci teg seen gët moom mu ñëw jégalu mais wax na ko pare. Ah. ñu dem ba jëmbi ñëw nañu gis Anta Babacar. moom taxaw jigéen surtout bu am valeur. di di di def geste yoo xam ne man sax ruus naa koo def ci télé bi jamono ji ñëpp capture ko dagg ko di wane ni. Eh, xoolal Anta Babacar moom ni muy def am ñu taxaw sant ji <laughs> ko day wàlle. maa buñ ko yóbboo loolu man gis nga loolu mooy. seen ni ñu mel gis nga jikko ak boroom mën nga ko mën nga ko denc nag nëbbu ko mais lu mu yàgg yàgg te lay fekke loolu xam nga la lay wane mooy que ni gis nga ñii fi nekk nii di rëy làmmiñ mm-hmm. amu ci kenn koo xam ni ku responsable la ñu baal ma ci kàddu gi te bu ñu leen joxee réew mi itam loolu kese la ñuy jugé réew mi noonu kese la ñuy yore réew mi mais parce que loolu la ñu wane. Mm-hmm. xam nga boo demee ba un leader di comporter woon di insulter publiquement ak loo mer mer mer ci koo xam ne ay yuuxu kese. Anta Babacar Ngom lu ñu ko doon def moom itam mu ngi doon sonkorisé. Ah, yow koo xam ne yow. xale yi tamit rek boo xam ne. nii da nga leen ci jaar leen ci ba faw. pour man loolu ñaan mooy ñu organiser mi. ñooñu boo leen joxee réew yaa xay. Sonko réussir na lépp. ba mu des yar njabootam moo tax moo tax les boo yaakaar <laughs> boo yaakaar Sonko moom saa su ne. day moom ay ko non yar na <laughs> leen di ko di ko non c'est que xale yi xale yi di ko sànni gars yi mag yi ni ñuy waxee ko sànnee ñu jëfru wax wala ñu def loo xamante ni si ni Sénégalais ci la ñuy jaar xeeb leen ci Ousmane Sonko continuer moom ci dox doxam. depuis xale yi ni ñuy waxee ni mag yi di waxee noonu la leen xale yi di tonto waaw c'est que c'est que du loolu de da ngay gis mag ñi sax dañuy mbalak ndax gisoon naa El Mali bu wàccee ñu naan ko sa waaji romb na fi dem mu naan borom neenu baxal cent cinquante léegi nag bu gisee commentaire yi di di gars yi di léegi nag gis nga noonu muy foowee noonu wax ju ndaw jooju mu foowee noonu muy foowee noonu léegi ñële buñ koy tontu seen xol day baxa baxa baxa bax bu buñ koy tontu c'est que ñoo war a dugg itam si jeu boobu leen di yóbbu en réalité ce que ces gens-là n'ont pas gis nga politique on est adversaire politiquement mais on n'a pas de problème personnel personnel ouais. cest dire que mën nañ balagante ci wàllu politique mais bañante bañante ça devient autre chose te tey quand tu entends un Barthélemy qui parle ci Ousmane Sonko ndeysaan ñaari benn bañ boo xam ne mu ngi koy exprimer c'est plus fort que lui. mais léegi kon bëgg bëgg bi woon xanaa sincère loon. non Samba non yow xanaa xamoon ne à l'époque tous les patriotes avertis parce que xam nga patriote yi man dama leen di suivre mhm. gis nga les patriotes avertis ils étaient contre ils étaient contre même mhm. le fait que Sonko doon wàcc di ànd ak Barthélemy mu koy dem di ko gunge tribunal y avait des patriotes yi qui étaient qui contre même bi Khalifa di nekk ak euh, Sonko coalition mhm. y avait des patriotes qui étaient contre mais comme patriote yi c'est un c'est très discipliné c'est un parti très discipliné. benn ci ngañ ah, Demba Touré. voilà voilà ils peuvent dire que <laughs> on n'est pas d'accord. mais quand leur leader dit que. bàyyi leen ma def la majorité. bàyyi leen ma def majorité. waaw non da non xam nga <laughs> xam nga par exemple tey. Mhm. je te donne le cas de je voulais même pas revenir parce que c'est un truc déjà enterré mais tey xoolal tey xam nga tey toute la majorité est contre la nomination de Samba Ndiaye mais le fait que Ousmane Sonko wax. les gens se sont conformés. ci li Ousmane Sonko di wax. Mhm. parce que xam lu tax ñoom dañoo wóolu ne Ousmane Sonko ba nga xam ne ñoom lu moom lu mu wax rek jàpp na ne moom moo gën ci projet bi benn booy dafa wax benn wax boo xam ne c'est à la fois ironique mais plein de sens. dafa ñëw ci journaliste bi ne ko xam nga lii micro la. boo ma ko joxoon ma téye ko nga ne ma micro la Ousmane Sonko tourné ne ma du micro ma ñëw ne la lii du micro. est-ce que tu comprends li ma la bëgg a wax. nga jël micro bi Ousmane Sonko nga jël micro bi jox ko booy bi ne ko lii micro la booy bi ne la waaw Ousmane Sonko tourné ne ko lii du micro booy bi ne la day ñëw joxaat la affaire bi ne la lii du micro ça veut dire que il faut ils font deux cent pour cent confiance à Ousmane Sonko. Mhm. loolu c'est un travail boo xam ne Ousmane Sonko daf ko nekk ak ñoom di teg ay actes di wax. ñuy gis ne wax yi muy wax ak ay actam dañoo méngoo parce que nit ki ci loolu rek la la mën a juger mhm. la ngay wax ak la ngay jëf bu méngoo dafay créer benn confiance ci sa diggante ak nit ki malheureusement non hommes politique depuis depuis depuis depuis après Abdou Diouf après juste début Ablaye Wade confiance bi dafa dañoon ci entre les populations et les hommes politiques population bi dañ doon jóg di mobiliser wu à condition que nga fay leen mhm. population bi dañ doon naxante ak homme politique yi boo ñëwee dugal leen ci kaar yi ñu ne ok waaye kaar bi balaa moo takk il faut nga wàcce ñu nga génne junni junni jox la booy boo demee yóbbu leen biir stade porte bu porte bu mag bi nga leen di dugalee. bu ndaw ba la ñuy jaar ca porte bu ndaw ba la ñuy génn ñibbi. après dafa nekkoon benn jeu de dip entre les hommes politiques et le peuple ñuy dawee noonu. Mm-hmm. mujj gi dañ lay wax ne yow si tu veux avoir une promotion del nekk ci média yi rek di défendre le président de la république boo koy défendre rek dañ lay fal moo tax du temps de Wade jusqu'au temps de Macky Sall on a on nommé des gens yoo xam ne laisse tomber. Mm-hmm. laisse tomber des gens yoo xam ne ah mun waru waroo leen sax dénk bitik parce que le cœur le seul critère de nomination à l'époque c'était ngay ngay saagaal Macky hmm. nga koy défendre durant durant le règne de Macky